lii ma bëgg a terminer nag ci wolof laa koy wax ndax dafa ma ñor dafa am lu ñuy wax droit de culte maanaam àq ak yelleef ci ngëm-ngëm monsieur ministre ñu ngi bay bayee ci réew mi lu lu mën a taal réew ku ne sañ ngaa gëm la neex ku ne sañ ngaa nekkee diine ja neex waaye réew mii ñu nekk li ëpp ci ñun tey jullit dañu am tarix dañu am sëriñ di ko fonk man nag duma wax Ousmane Diagne ndax dañ ni gone bu nekkee ci keppaaru kilifa ngurum tuul di wax ci kaw te kenn terewu ko kilifa ga fa nek and na ca j'interpelle le président de la république li muy def gëwuma ni li commissaire kayta def mo gëna graw graaw ni li Bah def mo gëna graw graaw ni li Ahmed Suzanne je ne les dédouane pas vous êtes un homme mesuré et calme un doyen je vous invite su mënee nek nga wax ak kilifa yoy ndax ciow li muy jur mën na bari ndax amna fu mu feeñoon muy medina Gounass ñuy ñuy masawu cerno diko ko di ko masawu bu baax a baax gis nga coow mel non mo meuna tal rew rew mi musuñ ko xol ci waaso musuñ ko xol ci diine liñ ko mos xol c'était un état nation malay ñaan lu mel noonu bugguñu sa ay gak ndax bima lay xam ma ngi dëkk immeuble Pasteur comité la doon nekk ci souf nga fa daan ñew vingt cinq ans ci tay nga traverser régime Ablaye Wade traverser régime Macky Sall don ki nga don gëm naa ni dara du la soppi mais nak souvent quand on est en équipe quelles que soient les prouesses de l'individu vous ne pouvez pas garantir la victoire et ñu ngi koy ñaanal moom le président mu def li baax bu ñëwee def li gën on est pour la réduction des comptes mais pas pour des règlements de comptes te jàpp ma ne ci réew mi nag ci soupçon rek war nañ mën a tere nit mu génn réew mi yi ni mel ñu ngi la ciy interpellé bu baax a baax a baax a baax ci la wax ni loi bi dinañ ko voté c'est l'occasion di sant di gërëm képp koo xam ne ni député nga wala ngay liggéey assemblée nationale gëm naa ni c'est notre dernière prise de parole jërëjëf